ginnaaw bañ leen nuyoo a ba nga xamante ni fa ñëwaat fii seet ko Yoff mu ñu fas ñëwaat ci wax jooju lu taxoon mu wax ko ak tamit est am na leen mbir mu bees mu gisaat ci combat bi ginnaaw ba nga xamante ni dëgg nañ Modou benn blessure am ñëpp ko loolu nañ ci ñëwaat est-ce que gis na ci lu bees ci combat bi waam wala déet dañ ko a bàyyi ak mu nuyoo ngi ngi dugg ci waxtaan bi sëñ bi maa ngi lay waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Xaadim maa ngi lay delloo ziar bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooleem askanu senegal di ñaan yàlla subhanahu wa sama kàddu gi fekk leen ci jàmm te di ñaan yàlla sunu borom yërmande ak jàmm ak yiw mu baril ko ci sunu réew mii di Sénégal te xalifa généraux yi fi nekk yépp yàlla sunu borom guddal seeni fan te gën a dëgëral seeni taxawaay te li seen yéene ci liggéeyub islaam mm. waaleykum salaam wa rahmatullah mm. macha allah sëñ fi ñu doolee waxtaan bi nit ki nga xam ne dafa nekk ci place mm. bëgg sax ci place bëgg fa yàgg maanaam est-ce que tey bu jokkoo woon ak yow am nga ci saafara yoo ko mën a jox waaw alhamdulilah dañuy sant yàlla rek ndaxte yàlla moom mooy aji màgg ji te ci moom rek lañuy ñuy toroxlu te it moom mooy delluwaay bi lépp loo xam ne si am nañ ko wala lépp loo xam ne nit ñi séentu nañ ko ci ñun ba di ñu ko yaakaare mm-hmm. yàlla sunu borom moo ñu ko jagleel moo ñu ko dimbalee mm-hmm. kon mënuñoo bàkku ci kanamu yàlla sunu borom yàlla rek moo yelloo bàkku mm-hmm. waaye li nga xam ne si mooy aajo bi nga may laaj alhamdulilah yàlla sunu borom wërsëgal na ma ci ba mu doy ginnaaw nit ki nga xam ne si dafa nekk ci këram te mënta lijjanti dara ba mu sotti mënta am dara mënta am benn liggéey ginnaaw kooku mën ngaa lijjanti àddunaam ba yàlla sunu borom wërsëgal ko ubbil ko ay tawféex ku man loolu yaakaar naa ki nekk ci bërëb di liggéey mu war naa mën a të donte nag moom moodu moodu yi di ko jàmbat bari na lool nekk ci bërëb di fa liggéey am ay tubaab yu ñu fa nekkandool mu mel ne dañ leen di siis ci bërëb ba may dox ay tànki jéego yu ngir jëlee leen fa loolu moom alhamdulilahi rabbil alamin yor nañ ci ñaan goo xam ne si day aajiwu ñu xam patron ba danañ la ci defal ñaan goo xam si patron ba dana la bëgg ba du la yem rek benn emploi boo xam ne si ma nga ci biir place ba hmm. te it lay neex nga jóge fa waaye li feeg yaa ngi ci place moom baatu maanaam yeewi nañ la doo ko mas a dégg hmm. ala kulli xaal bu jëfandikoo ñaan gi nga koy jox bu jëfandikoo ñaan gi ma koy jox hmm. ci kàttanu yàlla baatu yeewi nañ la moom du ko mas a dégg waaw waaw te patron ba moom du ko yemale kenn ci emploi dana ko bëgg fonk ko te ci diir bu gàtt la ciy tàmbalee teg bëtam waaw te moom bu nekkee bitim réew sax bu ngeen jëflantee moom dana gis résultat waaw man na mën na samay mbir yi ma yor nag mm-hmm. ñi ci ëpp ci bitim réew aajo yi ñu may diis lu jëm ci wàllum ay këyit la mm-hmm. wàllum noog mm-hmm. wàllum bërëbu liggéeykaay yooyu waaye képp ku ma ciy jëflanteel na fekk nga am CP képp koo xam ne amoo CP maa ngi lay ñaan duñ mën a jëflante man ak yow loolu mooy maanaam pour nga mën ko yónnee ñaan yi foofu moo ngoog pour mu ko ñaanam waaye kon nekk fii nag naan ay naana defal ñaan yeeg yooyu noonu déedéet loolu mënuma ko wax dëgg yàlla kantaan nag ki nga xam ne sii sax dafa nekk foofu bëgg am ay kayit hmm. ah wallahi yàlla ma tiim hmm. yàlla wërsëgal na ma ci xam-xam boo xam ne sii bu ma ko liggéeyee jox la ko hmm. ñaari weer bu ko amee ci sa ndigle boo dem boo dem boo ñaani jee kayit ñu may la kayit ci ñaari weer ci ñaari weer ba ci ki nga xam ne sii dafaa nekk di bëgganteeku jigéen yàlla sunu borom dogal ko mu lekkal ko alal ju bare bari wala jigéen nekk fa di bëggantee góor mu lekkal ko alal ju bari bëgg koo wor wallahi bu toqee ci sama nopp bii buñ ci jëflantee man ak moom lam bëgg dana ko am lam bëgg ba ci ña nga xam ne si dañ fay nekk ñu leen di buntu xatal jigéen ñi di leen buntu xatal di leen yóbbu ci yoon ci lu dul dëgg képp koo xam ne si yaa ngi ciy jëflanteeg man la ma lay jox boo ko takkee adduna du yàgg mukk ba caabi féete la naaw te bu fekkee ne kila la tooñ moom moo la yóbbu ca yoon wallahi lancim yaa koy njëkk a ñibbi yaa ko njëkk a dellu sa kër fa nga koy bàyyi buñ jëflantee man ak yow waaw coow yu mel noonu faral na faral na koy bari di dégg ci wàllu ci bitim réew maanaam nit jóge jële fii soxnaam yóbbu ko foofu dem ba foofu ñu egg foofu ñu am fay problème waaw bari na lool ñu ma koy wax nag wax dëgg yàlla waaye ginnaaw ñun ñëpp ay sénégalais lañ ki nga xam ne si Sénégal la la tàmmoo mu sagal la ci sa digg mbokk teral la ci sa digg mbokk kooku mu wax dëgg yàlla bu demee ba am yéene yóbbu la réew ma rek desee la tullu dara askan wi mu yóbbu la fa kon nga ngor ga nga xam ne si doon na daw démb ak barki démb war naa mën a continuer waaye jëflante bi foofu daal ni ma koy déggee bu dee noonu la demee ñaaw na loolu wax dëgg yàlla te ñun ñëpp ay sénégalais mën nañoo wax ne bokk ndey ak bàyyi ñoo war a dimbalante ci biir waaye waruñoo noonoo ci suñu biir man sama gis-gis rawat na ñu nekk ci àll bi ndax foofu tumaraanke dafay yomb kon ku ci nekk war ngaa mën a taxaw sa morom waaw na solo foofu la ñu des ba léegi muy côté bitim réew mm-hmm. des fois ñu gis euh, nit dem tukki foofu bitim réew mm-hmm. am fa jafe-jafe maanaam doon jaay ñu jàpp ko wala yeneen yeneen yeneen façon problème mm-hmm. ba yéen toog teg ko loxo. Mhm. est-ce kooku tey bu la woon am nga ci saafara. kooku su ma woon président réew moom nekk buñ ko téewul ne ko ràpp tëj wallaahi lancim mindeef du ko mas a tëj. Hmm. wallaahi lancim te lépp nag dama ciy jiital yàlla sunu borom moom rek mooy dogal ci moom laay hmm. sababloo. Hmm. waaye dama cee wërtëgal xam-xam boo xam ne dama koo def defati ko. waaw am problème ba war a taxaw ci war a dem tribunal ñu war koo àtte foofu. bañ maanaam ki nga xam ne si nee nañ war nañ koo tëj dans la vie giirug dundam. Mm-hmm. billaahi wallaahi wataalaahi li may wax yàlla rek laa koy seedeel. Mm-hmm. yàlla laa ciy jiital moom rek a man. Mm-hmm. moom moo naan na am moo naan du am du am. waaye buñ ci jëflante ci xam-xam bi ma yàlla sunu borom wërsëgal buñ ci jëflante. àdduna du yàgg mukk ba mu tëdd foofu maanaam du fa fanaan benn fan. ka kay yóbbu ka kay yóbbu ngir bëgg koo tëj. moom ci jëm boppam moo koy njëkk ñibbi këram waaw. te lépp ñaan. lépp ci jëflanteeg ñaan lépp. loolu à distance lay doon wax léegi. te daray njabar du ci dox ndax man lépp sama lépp alxuraan la. Mhm. daray njabar du ci dox ndax man damaa jàpp ne alxuraan moo ëpp doole luy am doole. Mhm. na histoire yeneen yàlla Moussa ak na mhm. ku ko jàng xam ne njabar du dara. du dara neex yàlla am naqar yàlla am képp ku la koy wax moom boo dee boroomu xel. war ngaa xam ne wax dëgg yàlla kii nekkul mooy faj say aajo ndax boo ko laajee maamam dana la mi ngi ci biir suuf boo ko laajee waajuram dana la mi ngi ci biir suuf te bu doon neex am naqari am moom ñaari bëri mais jëflante naka lay demee da nga koy da ngeen liggéey à distance wala da nga koy da nga koy envoyé dama koy yónnee ci waaw ci kaw am ndax lu muy lu muy jëfa jëfandikoo la moom ci jëmmi boppam waaw ko jëfandikoo moom incha allah kaso yàlla yàlla dina ko ci musal bu baax xam nga am na foo xam ne sii du ma fa xuus mm-hmm. ndax mbir yooyu noonu dafa compliqué pour nga nekk ci réewum Sénégal di ko wax parce que am na état boo ci wax dañuy jàpp ne yaa ngi influencé ay nit waaye daal sant nañ ci yàlla sunu borom bu baax ala kulli haalin waaw am na solo nit ku ci nekk nag danañ la laaj ban façon problème la ba noppi bu fekkee da ngaa nekk ci naka su dul yoon wax dëgg yàlla du ma ci jëflante ak waaye bu fekkee ne dañ laa bëgg a jaay doole tëj la ala kulli haalin dinaa la ci taxaw na mu waree moom waaw kaw ñu waxtaan ba déggoo ci kaw waaw ci wàllum seet bi mm-hmm. li tax mooy ay jamono ci ginnaaw wax naa ko léegi waxoon waxtaanoon nañ fii ci benn combat Modou Lo Ama Baldé ngam loo ci waxoon mhm. lu nga xamante ne bëriwuñ maara ay sëriñ ñaankat yu nga xamante ne am nañ fitu mhm. ci noonu comme ni ñu ko waxee woon mhm. yàlla def lañ ci waxoon moom lañ ci gis wax jooju bi nga ko bi nga dégg yéen combat bi reporté nañ ko est-ce que am nga am nga ci mbetteel xam nga musuma cee am mbetteel ndaxte ñaar ya mbir boo ci jiitalee yàlla rek yàlla bégal la ci te ku seetaan sama émission bi ma ko waxee léegi yaakaar naa mat na un mois ak génn wàll waaye la ma ci wax dafa leeroon naññi parce que li ñëwagut moom yàlla sunu borom rekk ko xam te jaam bi wut muy taxaw di bàkku ndaxte bi mu jàllee ba émission bi ñu yóbbu ko waar bari na télévision yi ma ci woo wax dëgg yàlla waaye dama leen a xamal ne man yelloo ma bàkku yàlla rek yelloo bàkku li ma wax amaana mënoon naa bañ a am te buñ dégloo sama wax baax dama ne jot naa ko seet a yoon yoon waaye li ma gis wonuñ ma benn yoon na dina am daan ne néew ma du am kon kooku li mu wax dafa leer wonuñ ma benn yoon nga xam ne lu lëndëm la waaye la yàlla sunu borom di dogal nag moom man xaw ma ko mm-hmm. ala kulli xaali mm-hmm. ndax dafa am aliwo ju ñuy wax lawhul mahfuus ak lawhul mahwi wal isbaat kooku ku jàng lépp looy wax war nga cee jiital yàlla mm-hmm. nga bàyyi xel ñaari aliwo yooyu ndax lawhul mahyu wala isbaat mooy aliwoo joo xam ne yàlla sunu borom mën na cee bind ne lii du am ñi dem ba ca biir yàlla sunu borom soppi ko daan ne lii day am bu dee lawhul mahfuus nag la mu fa bind ala kulli xaalin dara du ko far léegi nag yow boo xamu loolu mënoo wax ci lu ñëwagu daan ne far force nii lay demee li nga xam ne si nag man moom laa gisoon ci seet ba laa wax muy combat bi wanañu woon benn yoon fu muy amee loolu laa wax tayit bañ ko bañ ko jàppee bañ ko jàppee 13 mars yaakaar naa te mu jege xam ay le 25 jàpp le 20 am na benn site internet boo xam ne dafa jël sama vidéo dugalaat ko naan waar nar na amati gan man dama bàyyi xel waar yooyu man nee naa ne li ma bàyyi xel mooy waar yowmal am ndax yàlla sunu borom dafa am be dafa am ayib alquran bu mu ma wax moom moo ma ko wax mu dugg sama bopp ndax jàng naa ko ci alquran mu yow ma tubal asrair mu ne lépp lu waaye di def maanaam lépp lu nëbb woon dina feeñ ëllëg lépp lu nëbb woon dana feeñ ëllëg keroog yowmal xiyaam muy lu bon muy lu baax muy lu rafet muy lu ñaaw kon man waar boobu laa bàyyi xel waaye du waaru àdduna bi nga xam ne si sama moroomu nitam moo ay taxaw naan damay siisee waaw. <coughs> mbir moom bettu moon wax dëgg yàlla. bettu moon mënumaa taxaw mukk nag daan ne du am. ndax boobaa day mel ne damaa taxaw place yàlla te yàllaay dogal. te man sama jëm bopp xaw ma woon ne ba xam dinaa fekk bis ba am dit kon mënuma caa dogu waaye li ma gisoon laa mën a laa mën a wax muy du am man loolu laa gisoon wax dëgg yàlla combat ba léegi xelu amateur yi xaw na ci jaxasoo ba léegi euh, reporté nañ ko mais tamit ba jàppaatuñ beneen date. Hmm. est-ce que boobaak léegi gis nga ci beneen beneen coppite. waa li ma ci waxoon rek xam nga nee naa la ba nii may wax ak yow nii donte nag seetlu ñëwagut. te seetluñ la seetloo wut am jot la. waaye bu fekkee ne yàlla sunu borom dafa dogal. médias yi di la soxla. c'est normal ngay c'est normalement ngay wax ci actualité. waaye ba nii may wax ak yow nii gisaguma fu muy amee. wax dëgg yàlla ba nii may wax ak yow nii gisaguma ko. te yaa ngi ciy dafay ba nii may waxee yow nii gisaguma ko wax dëgg yàlla te la ma ci waxoon bee jàll laa ci waxaat néew ma du am. Mm. waaye gisaguma benn yoon fu muy amee. Mm. donte nag gis naa nag sama mbokk maarab boo xam ne toog na ci site internet di ma kalaas naan combat bi dana am ci far force maanaam bu ne woon combat bi dana am ci bu neexee yàlla yàlla mën na ko wuy si waaye far force kooku noonu yàlla sunu morom da koy wan ko man maay ki ki sañ moo am ci force. Mm. ana mu tey jii war naa rus a taxaw sax ci télévision di waxati. li ñëwagul yàllaa ko xam yow li la yàlla sunu borom wërsëgal yam ca waaye bu ci boole lu ci bokkut ndaxte des fois man damay gis sëriñ boo xam ne daanaka li muy wax moom mooy li yàlla man lépp moom mën na ko man moom des fois dama koy gis yàlla xam dama koy seetaan nii di reetaan wala ma jékki-jékki daan ah kii de moom ëpp fit moom li man ni lépp de man mënuma ko wax dëgg yàlla bu ñëwee nag ci wàllum samp nit dañoo toll ci jamono joo xam ne si bari na commerçant yu may woo yoo xam ne dañoo yëkkati ko woon jékki-jékki di wala seeni bërëbu liggéeykaay dox lool jékki-jékki rek waat loolu nag ala la xaalin ñaar dana ko faral def parce que nit ñi dañuy ñaanlu rek des fois nit day ñëw ci man daan ne damaa bëgg def loo xam ne sii moom li feek jaralu ma moom kenn du jaral man damay gàntal loolu daan ne mën naa def leen daal saa boo xëyee ala la xaalin yàlla sunu borom di la wërsëgal loo xam ne si moom doo ñëwee min def mu yàlla bind waaye ñu mel noonu nag nañuy bàyyi xel ne nit mën na leen a gàllankooral seen place nit mën na leen a téye ndax wërsëg dañ naan yàllaa ko mën a téye waaye njabar dana téye wërsëg te njabar lu am la doonte du ma ko duma duma du ma jëfandikoo njabar waaye alquran këpp doole ala kulli xaalin commerçant bi nga xam ne sii dafa ñëw bëgg a yëkkatiku bëgg yàlla sunu borom teel koo teral ala kulli xaalin bu ñu jëflantee man ak moom ci diir bu gàtt mu gis teraanga yu dul jeex yëkkatiku te du bu fay bu faaw waaw commerçant bi nga xam ne dafa bëgg marchandise am gaaw am njarte daal ba ci commerçant bi daanu bëgg a yëkkati ko waat bu laa koy jaaree xalwatu ñetti fan hmm. lépp lu ma ci dogu ci yàlla sunu borom bi tabaaraka tax taala yàlla dana ma ko may ala kulli xaarin waaw loolu loolu moom dama ciy sant yàlla baax parce que dama ci waxoon benn wax ndax dama ne woon ba ci président Macky Sall bu fekkee ne li may wax ni doy na ko hmm. nit ñi nag dañ ne maanaam président Macky Sall moom lu mu ci wuti maanaam li may wax pour la ba ma woowoon ba ci paleem na ma bàyyi sama course ak sama kaamel alxuraan ñetti fan bu ma ko duggee xalwat bu ma génnee su ma ñaanee yàlla suñu waru ne ko tawal mu taw. yow mii mën nga def loolu. su ma su ma su ma su ma ko duggaloo wala ma génn bu ma ne koo tawal tawut nañ ma dóoru bal. baa li des ci sama àdduna moom na doon prison bi. xanaa looloo gën a yéeme waaw loolu wax dëgg yàlla ah, xam nga problème mooy nit ki nga xam ne dafa liggéeyal yàlla sunu borom dëkk ci di liggéeyal yàlla sunu borom bay gis ne mi ngi am gërëmal yàlla mm. yëmuta ki nga xam ne si day tëdd nelaw gëstuwut jaamu yàlla ju mat sax ma maam wu ko mm. waxtu woo ko woowee da nga ko jot yëmuta ki nga xam ne si am na ci waxtu woo xam bu jotee da koy jox yàlla mm. man suñu xaadim man boo xoolee sama bët yii nii xam ne nelawu ma nelaw bu doy deux heures ba quatre duma ko tëdd nelaw julli fajar ba noppi laay door a dallu te huit heures dana fekk ma jugaat kon damaa sonn ci jaamu sama borom di sàkku ngërëmam te ngërëmal yàlla moo ma mën a may képp ku ma ñaan aajum fajo te dama gëm ne nag mbindeef moo xam ne yàlla sunu borom nëmmut a faj ay aajoom bu maanaam bu ñu waxtaanee duñ juboo ala kulli xaalin képp koo xam ne yàlla sunu borom dogal na mu ñëw ci man ñuy waxtaan ak moom wallaahi la xasim buñ juboo aajom dara fajo aajom dara ak aajo ju mën di doon nag ba mu des boo xam ne day rey nit wala day féewale nit di dëddee nit yooyu moom doxuma ci moom ku koy dox na nga dem ci njabarkat yi nga xam man nañ lépp macha allah yéen ko dégg muy Serigne Mourou Touré wax dëgg yàlla nekk ko yàlla may ci wàllum ñaan ak ci wàllum seet mhm. ne ngeen xam ne euh, yoo xam ne dañ mhm. yàlla kon numéro téléphone moo nekk noonu si écran ba ngeen ko soxlaare bu ngeen ko woowee incha allah ak fu ngeen mënta nekk si àdduna moo xam Sénégal moo euh, mhm. bi bàyyi nga wax kàddu bu mujj rek waaw alhamdulilahi rabbil alamin li nga xam ne si daal moom lay tëjee samay kàddu ah, muy sama mbokk sëriñ si nañu rafetalaat bu baax a baax doxin wi ndaxte man li ma doon dégg gawuma ko woon mhm. waaye mu mel ne daal dooy na waar lool ndax ay nit dañ may woo daan ne ma yónnee nañ sëriñ diw seen alal ñu boleke ko mhm. nit ki nag boo demee ba génn ci télévision daan ne man nga wax dëgg yàlla képp koy jëflanteel la nga koy jëfal bu ko gisut war nga koo mën a delloo alalam ndax yaa ne ko man nga bam ñëw ci yow ñaareel ba tamit nit ki ñëw daf la dafa jaaxle mhm. am yaakaar ci yow léegi nag bu fekkee ne dafa am yaakaar ci yow yow nga ñëw yokk kay problème loolu tamit beneen mbir la nañ ciy rafetalaat bu baax te xam ne yowmal xiyaam daal mi ngi ci sunu kanam te yàlla nee na yaxlamuuna maa laa tafxaluuna innal abraara la fii naayim wa innal fujjaara la fii jaayim yàlla wax nañu ci alquran wax joo xam ne neex naa dégg ndax nee nañu afala yatadabbaruuna alquran na ngeen seetantal alquran am xalaa qulubihim axfaaluha am seen xol yi dafa tëx dafa gumba kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax ndax yàlla nee nañu la am la am na jahannama minal jinnati wan naas waat na ci màggaayam ne keroog yamal xiyaam dana feesal dell sawara ci diggante nit ak jinne kon amul kenn ku mën a taxawaat ne da nga ci mucc kon nañuy rafetalal dërëm boo lekkal doomu aadama fii cig neen ëllëg da ko ko fay ndax yàlla nee na la laa taakuluna riba bu leen lekk riba kon loolu nañ ciy bàyyi xel di wax ne ñi nga xam ne yàlla sunu borom dogal na ay borom yi kër lañ di leen baaxee benn mbir rek képp koo xam ne yaa ngi xëy suba def ko wallahi dépasse dana la yomb doo ko ñaantooti fenn muy wa baarik lana allahumma fi jamihi kasbina wa xullahu qudal usri yaa yuuhu armaxat allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaleykum salaam wa rahmatullah